Dahaba eh, ma ngi Banjul suma yaaya ngi Banjul suma baaya ngi Banjul police line eh, tay so demone office inspector general of police ci bunti office am bi di fa gis eh, police yu njëkka police yu yi di ko fa gis police dan sol sot ding fajis, ko fa gis di nga gis second row ding fa gis modou dahawa koku moy suma bon fada koku moma ma jur su ma man ma New Street man domi Banjul la waaye suma yaay yaayam Badibu la bayam suma bay bayam Faraba la jógee kon man gambian la suma njaboot yeb juddoo Banjul fi o uh, umi man Dahaba uh, maa ngi doré siw si GPTC uh, ma def suma life career yeb GPTC di dawal school boss, fala la nit ñi fa la ma nit ñi xamé be bi yaaya jame di jël rew mi 1994 fa la ma feka so ma gëna siw moo isi daxaba daxaba daxaba daxaba bii euh, man ñu nekk nag si politique Yaya Jammeh fa laa gën a siwee si politique Yaya Jammeh foofu laa gën a siwee nag ma dooroon ko Yaya Jammeh ba een ko ak moom man su ma buggee rek bugga naa man du musa ne kenn musuta kenn mënut a tax nag si àddina bi ba man ndaxa ba ma nekkal la opposition waaye nag benn buur du taxaw Gambia mu ne man ndaxa ba dina ma jox place dunduma palaas bugguma palaas mënumaa nekk ministre mënumaa nekk député mënumaa nekk gouverneur mënumaa nekk ambassadeur mënumaa nekk protocole soxlu ma ko waye nak ken munut ma nekkal lo opposition mënu ma ko mënu nek nekk awju billahi minash shaitanir rajim halatu ko sax suma dundi adina man daxa ba ma nekk opposition dedet yow nak yow president bi nak desna si yow bo toge bene ne daxa ba la togu bi nga tok man dama si am chia gis nga dama ko de wax always Gambia dañ desee xam politique boo gisee Sénégal raw ñu si politique ñun di wenn ñoo yóbboo politique du noonu gis nga crossing capet comme yow nga jógee si pati bii nga ñëw fekk si pati président bi su fekkee ne yow politicien nga bu doon senegaal la yow <clears throat> dañ la war a dafa mel ni dañ dafa mel ni ngénte dafa mel ni comme nga am doom bu ees nga war koo ngénte noonu la crossing carpet wala mel waaye Gambia fii dafa am lu ñu ko dee seetee mooy xëy na dëgg la self selfish fa waaye dama ne politicien bu bàyyi pateem politicien laa wax de am nga politicien dafa am origi ku nekkul politicien am yow bu fekkee ne da nga am pati man ma am pati man maay njiiti réew mi yow su fekke ne yow politicien nga te yaangi joge sa parti nga ñëw si man suma parti dama la wara a jox a big welcome waye fi xam nga luñ la joxagne hay ki yaaya Yaya la doon support lu tabe duñ support Yaya jame Yaya jame fi nekkon kan mo fi nekkon suma digante Adama baro soo ko laajee sax la ko wax waye dama la ne li moy politique so toge te nan Adama Barrow man ñun ñoo ko fa taaj waaye léegi gars yi yaaya jaame yee fa nekka lu tax ba gars yi yaaya jaame duñ fa nekka yow lu tax yow mi teg Adama Barrow lu tax tey nga mbas ko lu tax nga onamayne ko dafa am lu anglais wax ñu ne yow best friend could be your worst enemy but was worst enemy also could be your best friend so loolu moo fi nekk su fekkee ne yow man suma xarita ak yow man jël naa sacrifice naa suma resources sacrifice naa suma time suma life suma yëpp ñu ñëw taxawal la pour yow nga ñëw taxaw nga génnee fi yaayaa jaame kon ñun ngor yaa boobu noonu tey moom lañ war a continuer ba ñi nga xam ne ñoo doon support yaaya jaame su ñëwee sax duñ am place waaye yow nga jël kii taxawal ko bi nga xam ne taxaw na nookee gut sax si toogu bi nga ne na waaca seetal loolu kon yow dafa mel ni yow dang doon jéem yen dangeen ngeen jëloon Adama Barrow ngeen teg ko pour sacrifice ko léegi nañ leen calculer su fekkoon ne last election bii nii yàlla traité ko yàlla last election bii nii su fekkoon ne loosis amoon na Yaya Jammeh wiin na tey naka la Adama Barrow di dundee si réew mi ak naka la moo dundee ak njobootami ak naka la moo mel ban façon taget la moo nekka ndax dina confortable ndax du confortable nga baameel dafa xat-xat boo xam ne bul seet si man suma bët ba yow doo ma wax dëga fii ku fi dee doo dem ak kenn si baameel yow kenn rek yow yaay dugga si sa biir baameel te ñuy génnee wax ju rafet di wax dëga te yàlla tax man suma politique gambia yeb nañ mo gëna mëna janga dina agri way billahi wallahi tallahi gambia yeb ragaluma kenn ci politique man mako wax gambia yeb ragaluma kenn ci politique man suma diggante adama baro soma ko laajee dina la ko wax gis nga yalla dom adama sa xol mom la la fay dom adama yalla dula musa fay sa jiko nit ki loo def si lu baax loolu la la yàlla suñ borom di di fay loo am lu ñaaw gestul si sa gannaaw nga seet lan nga liggéey. 50 years anniversary biñ doon celebrate ba Macky Sall ñëw si Independence Stadium bi jamono yaayaa Jammeh président bu dugga man dama la dee jox standing ovation Macky Sall dafa dugga ma jox ko standing ovation ñaari yoon nga suma xarit la. bi pro arama boobu bi programme bi demee bay jeesi suma benn xarit police officier la moo ma kool mu ne ma daaba foo nekk ma ne ko maa ngi nii si stade bi mu ne ma dama laa ñaan ngir yàlla ak yonente ba sooy ñëw bul jaar sa kër ma ne ko lu xew mu ne ma ñaari NIA ñu ngi taxaw sa bunt kër di la xaar xam nga nit <clears throat> dañ fail to understand leena xëy na people might think that 22 years Yaya Jammeh yëpp Dahaba was enjoying man suma enjoy sa dama sa pour enjoy ko because man duma top bour ngir place duma top ngour ngir position soo gisee Sénégal sen politique ñu raw ñu even Guinée Bissau sa sen politique ñoo ñu raw because ñun politique grievance lañ am tegna suma bët ne xëj na Cissé am man warna ko am because ma fi jitu maymuna Cissé lolu das wrong nit ku nekk ba nga judo fa la yalla sa exercise book li nga war a am li nga war a ñàkka li nga war a manqué li nga war a lekka ak ba fa bakkan bi di em foofu la ko yàlla emal kees close kenn mënu si dara kon nit ki loo mun na am na nga gëm yàlla ne yàlla moo la ko wërsagal da nga ko war a am yaa ngi maa dégg fine bi ma waxee ne ma ñaari NIA ñu ngi sa bunti kër ma ne waa ok dinaa ñëw ma seet ma drive suma moto ma ñëw ma ñëw romale kenn kaa ngi bu na noppaam bi ah misa daxaba ñëw nga ma ne fayen ñëw na ah ok non man dama doon romba rek gis la ma ne koy dem dugg a jël suma baak daxaba fooy dem ni ma ne ko loo ma laaj lu xew lan moo xew non man dama ñëw nuyu si xaw ma diw sangam suñ koñ gi fii nii rek su ma ne xaaral ma laaj la ma ne ko damaa tukki te bu ma bul mistake nag laaj ma foy tukki do ma ko dina dinaa la dur mala mun mala upa dole dina la dur so ma ko rek dina la dur feka time boobu suma xol bi mu suma bir gémmiñ gi man munuma noki Gambia fuma ma ñi ñang ma moytu fuma ma ñi ñang ma advice fuma ma ñi ñang ma people are advising me dahaba dalal dahaba bàyyil sahel fekk man gisuma dara yaaya jaame laa gis suma life yëpp moom laa ko joxoon noonu laa jëlee suma baak ma wax ak Abdoulaye sañang deputy inspector general of police moom rek mooy woon suma sernde ma ne ko laay mu ne ma naam ma ko man dama xat Gambia xaar ma génn Gambia mu ne ma daxa ba ma ne ko naam mu ne ma fan nga decide pour dem ma ko xaar dem Dakar mu ne ma Dakar dafa expensive pour yow waaye anyway soo mënee dem bisaaw ma ne ko Bissau nag xaw ma fa kenn waaye dinaa try daal ma dem nii laa génnee Gambia ma drive dem ba si booda bi fekka sax man ma Macky Sall ma mayoon xaalis that day Guinée Bissau président ba ma may xaalis ba pare promise ma ne su ñibbee daf maa invite Bissau xam nga story bu set laa laa wax de man xaw ma fen si adina la tok ni jakarlo adina gi duma fen ma dem si boda bi ñu ne ma ah yow ma fan daa débarka lo, xaw ma lo on parade bi xaw ma on parade bi fa nga nekk ma leen damaa tukki damaa dem bisaw non la rombe si boda bi ak suma moto ma dem bisaw bi ma bisaw man ma bisaw euh first day ma dem si benn hôtel bu ndaw ma dal fa ana sa ma dem bi ma dëkkee si hôtel bi foog naa it was on Thursday mu mel ni nit moo ma ne bi ma eewoo si suba ma génnee suma moto bi waaye opposite hôtel euh, bi dafa am benn restaurant bu fa nekka ma ne xaaral ma dugg si biir restaurant bi ma ndéewoo so maa ngi gaare suma moto bi si bunta bi bi ma duggee di ndéewoo rek ma génna mu am ñaari police yu ñëw laaj ba kan moto bi ma ne leen man la daxa ba ñu ne ma kaay nga ñëw ranal sa moto président bi dafaa dem weekends dafaa dem weekends so noonu laa ne cey yàlla ñëw na ma ñëw randal suma moto bi paakon na le waaye maa ngi sol di same aso bi aso bi yaaya jaame bi ak koppati bi yaaya jaame de sol mbaxana bi maa ngi ko sol xam nga obviously gambian bu ma gis dina xam ne kii daxaba la waaye maa ngi ut na gambian bu ma xam pour ma xam situation ni Bissau président bi di ñëw convoy bi koof rek koof bu gàttal nii rek ma taxaw teeru ko président bi daf ma gis dafa tiit mënut a understand lan mooy dox daf ma gëstoo gëstoo gëstoo gëstoo gëstoo gëstoo moto bi di dem mënuta a daal ne ndax du kii moom laa bàyyi Gambia démba tey lan la ut fii si saa si xam naa mu calculer one and one mu jox ko two xam ne Gambia bi ñu ngi ñu ngi fii si fenalante boole wonte gaa ngi bari during APRC time mu yooni ñaari NIA am amul 30 minutes ñooñu ñoo fekk ma fa ne ma kaay toog ñu waxtaan président moo ñu yónni kenn ki dafa dégg soose mu ne yow yaa nekkoon si li fi nagala taati eh, ñoom ñoolu ñu ko jàppee géwél ne ma yow yaa woon géwél yaaya jaame ma ne waaw man maa nekkoon si man la président ñu ne président ne ñu laaj la lan moo xew jis nga bi ma dooree di explain rek su ma rongoñ rot si la beneen NIA bi xam nga beneen beneen officer bi ne gis nga lii président bi sax xalaat na ko ne there must be a problème ana sangali ma min man ragaluma woon Yaaya Jammeh de waaye dama ko daan moytu billaahi ragaluma woon yaayaa jaame loolu APRC yëpp xam nañ loolu waaye dama ko daan moytu dama ko daan moytu understand nga soo noonu laa nekkee bisaaw noon laa nekkee bisaaw waaye li ma nekk bisaaw yëpp pour ma wax la jikko Adama yëfi Adama Barrow laa laa wax nii de muy APRC muy NCP muy PPP muy ak ku mun di a doon kenn faalewut suma njaboot tay yu mang fail fay loi ci Adama Baro Adama Baro la kol ma wako suma situation mo jël suma njobot yëpp mu dugal len ci self contain du courant du lampa du ndox te jamono gogu Adama Baro halatu ne dafa nekk president seeta loolu kan ki la ko defal jamono gogu man xalaatuma mom la dan kol kooku ñew nek president man lan la wara def man lan laa war a def yow su sa gis-gis war ko support wala dama ko war against dama ko war supporté du so nii la situation bi demee so man ba pare ma wala leneen si uh, suma diggante ak Adama Baro Adama Baro bi moo swear in man bi suma man kunda daanoo bim daanoo dama ko suma jabar dafa ñëw mu ne ma léegi naka la ñoo def uh, léegi naka la ñoo def because sikir kër Adama Barrow lañ nekka te tay mom moy président mom moy président ma ko anyway man dina call Njaga mu ne ma call Njaga ma jël suma téléphone man ma sét ndax dina am ma call nomba Adama Barrow bi téléphone nomba am Njaga moko amé amee ana sanga 7766 how ma 776 I don't know suma kol nomba bobu njaga amé ko mané njaga né njaga mu né mana mané ko légui euh dama don waxtan ak suma jabar mu helal mané légui fum né kan ni euh euh mbir soppé ko nak té ki mom kër gi ci kiram live lu was té légui mom mo né ka président mu né ma légui loy halat mané ko dama halat pour out né ak ma géna kena ku né ka sa bamél njaga mu ne ma daxaba ma ne ko naa mu ne ma di slightest mistake ngay def nga génn foofu man sax dinaa la mere ma ne ko lu tax mu ne ma xaaral ba Adama ñëw mu ngi suya in in uh, Dakar su ñëwee dinaa ko laaj ndax yow da nga war a génn ndax waruloo génn si guddi gi rek njaga kool ma mu ne ma wax naa aadama mu ne ma wax la ne yow su dee da nga bugg a génn yow nga génn waaye sa njaboot bi nga bàyyi leen fa xam nga ba léegi kooku mu laa woon ngor yaa ma gëstu suma jabar mu ne ma hé ba léegi I am uncomfortable because UDP niñ mel da nga war a bi very careful njaga si boppam drive motoom ñëw ne suma jabar Adama mu ne ma wax leen ne buleen leen génn tey buleen leen génn ëllëg kii danga la taat suma jabar ne ma léegi ni ñoo def su fekkee ne Adama tam dafa taxawal pateem yow comme si xat-xat bii nii mu ma tegal sa time su la soxle nga dem sa support ko parce que da nga daan taxaw time Yaya Jammeh nga taxaw si plateforme nga téye mic nga ne bés boo naree nekk opposition yan na bul teg sa bët rasuru la keroog yowmal xiyaama kon continuer waat boobu noonu bul musa nekk oposison léegi bi Adama jógee fële ñëw bi mu jóg waatee ñëw Adama wax ma ko understand léegi biñ demee ba benn at njaga ñoo ne ma ma ne njaga ah man de maa ngi leen amel eighteen thousand de rent waaye euh, mee ma tuuti mu ne ma ok si élection rek njaga kool ma ne ma kaay nga ñoo jël receipt ma ko receipt lan mu ne ma Adama fayal na la one year seeta loolu le waaye yow man lan laa war a desel Adama léegi Ah? te këram laa këram laa dëkka maa ngi fay luwaas këram fekk xalaatut ne dina nekk président te man na ma daan fay ay four months four months waaye su ma ñëwee fay si alama su ma may hundred five hundred dalasis dina ma may thousand dalasi adama baro bi su ma su ma mayut su ma mayut ma ma mayut five hundred dina ma may thousand dalasi jamono Adama Baro ah seeta xam nga loolu dafa am solo kon gis nga suñoo politique nañ politique ñu kaf ñu ree gis nga yàlla li ma la ko waxee yàlla doom Adama sa xol la laa fay gis nga kay toog si diaspora bi naan xay daxaba dahaba ye mol dahandi janat waye dahaba ya enjoy aram yaya jamme ya dahaba be nun yaya jamme le buru mom na tok fofu nan dahabam le be yaya jamme support kan nun munati nante yaya jamme support la mba support la fa a bana fa support because atele be nun jang so mo helo lama la de mun munati na that time ima fonye ko yaya jamme bula yana gambia ja ya fonye yaya jamme bula nga ñang na gambia yana fonye ko yaya jame bula ya jube te fango be fanjela damen bari bi tey yaya jame nekku fi toogu bi adama baro toog yaya jame moomu ko adama baro moomu ko jawara moomu ko tey saa dawda nga nale saa dawda mi nga xam ne moo fi moo fi xeex red white blue white green feefi heefi fooda Gambia our homeland muy national anthem bi di bàkk réew mi ba loolu wàcca si Gambia bi tey mu ngi ni fan lañ koo romba bunti Banjul ku nekkaa ngee doxi soxlaam kan moo fa jaar ne ko xaaral dem taxaw seet Sir Dawda Yaya Jammeh ñëw na def na fi ñaar fukki at ak ñaar dem na Adama Barrow fi nekka moom it bés bu yàlla jot paree fu taamam dina dem keneen dina ñëw lii mooy àddina lii mooy Gambia Gambia lii la laaj waaye Gambia laajut Adama Barrow toog toogagut benn at sax ngay xalaat naka la war a wàccee pour lan te yow yéen yéen a teg Adama Barrow collusion bi ngeen na Adama baro ñëw toog bi ñoo teg Adama baro hey ñun ñëpp Gambian lañ ñun ñëpp gis nañ li doon dox lu tax lu tax ñoom xam nañ ne ñoom ñoo gënoon a jàng Adama Barrow ñoom ñoo ko ëpp experience in politique lu tax ñu use man bi te man bi was okay with his own business mu ngi amoon ay staffam business am dox mu ngee dawal mu ngee dawal v six Adama Barrow ku la wax ne dafa staraan duga si wala dafa ut si xaalis borom waxut dëgga li ma fay si ren si Adama Barrow is more nearly ten years su su fekkee ne eegut ko tamit soriwu ko kooku ngulom business amoon na jamono goo xam ne xala Adama Adama Barrow xalaatutoon ne dina nekk président dafa am ñaari staffam yu ñëw ñu ne ma tey suñ boo ñu surprise ku nekk la lebal Mercedes Benz ah, li fi naka la taati one ninety wan ninety pour ñu def ko taxi ñu jàppale suñ boppa mu ngi ñoo lebal moto su lebalé ki ngén fay ba si digga mu ñëw tamit 190 ki 190 té time bobu Adama bor hala tutone dina nek président su ko defoon jamono ni dina xaliss nguur gi la he was okay because su 100 si réew mi la si réew mi 45 bi yépp Adama Barrow am na siyaa si këram yi si kër yi néeg bu nekk am na dalasi te mu ngi amoon staffam yi staffam yi kenn ku si nekka door nga ak moom benn kenn mësut a bàyyi Adama Barrow jamono googu noonu saaf bu mu daaxa di nga dem rey sa boppa parce que xam nga li nga am si moom waaye kon tey buñ toog di ko joxoñ nit ku nekk nanga wax sa diggante ak yàlla nga juboo ak yàlla doom aadama mere la ñoom ñoo xam waaye waxal li nga xam ne yàlla du la si ponis ëllëg Adama Baro moto bi mu daan dawal V6 la V6 moom la daan dawal loolu ku nekk teg na si botam business sam baa ngee dox projet sam yaa ngee dox compagnie am yaa ngee dox kooku yàlla ñëw def ko mu nekk président tey tey tey Adama Baro yow mun na laa wan woon one million dollars fa gaay collision gi amutee xaalis alama Baro moo frais si poosam bi mu joxe ko. because business am maa ngi continuer mu ngay dox yaa ngi dégg si meeting bi keroog am na ku taxaw mu serne mu ne ba ñoom ñoom ñoom xanaa si keesi nguur gi la ko jëlee gis nga bu ñu ñi ñi bu ñu ñi fata fii Gambia la nag it's not big as nga ne comme senegal wala Nigeria senegala a ngi ñu wóor ñu ñun ba léegi mënuñoo fexe ba mut ñaari million Sénégal yaa ngay dem 19 million léegi seen population Gambia ba léegi mënuloo egg a 2 millions over 800000 Sénégalais nekk a Gambia génne fa Nigeria ni nga génne fa Guinée Conakry nga génne fa Guinée Bissau génne fa lii ñun Banjul sax duñ ko mun a feesal réew mi réyut suñ xol bi réew mi ni mu tuutee noonu la suñ xol yi xatee pare wu ñëw xëjalante léegi yow réew maa ngee dem kanam ñun mënuñoo dem kanam ñun ñu ngaa dellu gannaaw rek suñ wàññiwut wax ji wàññi grievance bi waañi coow li wàññi joxoñante bi bàkkaar rek la rey suñ boppa te lii àddina la dañoo dem bàyyi ko fi fii kenn du ko fi enu nga ne danga koo yóbbuwaale kenn du ko fi enu nga ne danga koo yóbbuwaale politique la nag man nag man daxaba laa wa de billaahi wallaahi tallaahi dama du di nga man su ma ndey ak suma ma baay sax duma ma leen du ma leen du ma leen encourage sax diggante ak suma politique Munta possible suma politique dama ko def te duma gestu gannaaw bu yagon ni bur futa ma jappa bay jamono yaay jame ay dëkka dëkka ñoma de jappa bay loncin rek la def kana la binda ku la binda wax rek yalla kana ma binda yalla ji nga yalla mi ñu binda yalla dafa binda dom adama isi ko sir adina ah tiewut nopi dom katako. katako ne ko defal li, parce que li motax ma isi la aadida yàlla daf la binda binda ma binda ki binda ma demba ma paate ma yoro ma samba binda adina bi ñep ne len nak legi ñew len nak ngeen political sen bopa waye man yalla mi ma xamne ne len binda na ngeen xamne ne dama sampa ñaari kër sampa na arjana sampa na safara legi adina ba ngi ni legi dess na sien set len lan mo len gënal pour ngeen duga arjana te juma bunti arjana dama ko ubi, léegi yeen tamit set len lan mo len gënal safara baa ngi nii léegi des na si yow des na si man ndax dama wara julli ndax suma hol dafa wara set nda dama wara def lu ba ndax dama wara trangal dom adama wala dama wara sutural dom adama, wala dama wara jappale dom adama wala because yalla daf ne sutural ma dom adama man yalla ma sutural la trangal ma dom adama man yalla ma trangal la waaye boo yaaxee doomu aadama man yàlla dinaa la jox mujj bu ñaaw parce que doomu aadama mooy suma marchandise gis nga kii wax ne dem leen Adama Barrow daf leen may enveloppe bu brown gis nga ku nekk président Gambia fii bay foos da ngaa mee Senghor mi nga xam ne christian la jamonoy Senghor dafa maye kër maye moto yóbbu ñi ñi maaka yóbbu ñi ñi Rome Abdoulaye kii Abdou Diouf ñëw na kër yóbbu nañu ñi Màkka na oto sutural nañu ñi yóbbu nañu ñi Róom Abdou Diouf ñëw di séem Macky Sall ñëw di séem Yaya Jammeh Jawara Jawara ñaata nit la fi may kër ñaata nit la fi yóbbu Màkka ñaata nit la fi yóbbu Róom ñaata nit la fi may moto Yaya Jammeh ñaata nit la fi yóbbu Màkka ñaata nit la may kër ñaata nit la fi yóbbu Róom loolu is that is kan mooy nekk président nga ne doomee ab kii naka la daati euh, euh, euh, Adama Baro su waree mais président la dafa war a mais loolu is that a crime na mus ngaa gis mus ngaa gis nga nekk président Afrique nga ne doomee Macky Sall ba mu ñëwee Gambia fii nii during ama ama lifin bi naka la tuddaati fifty years anniversary first day bi ñëwee fii two million la ma may CFA ba mu bam ba mu ñëwee anniversaire bi two million la ma may ba ñëwee si opening of the bridge bi may na ma ay million ban président mooy nekk Africa nga ne doo may is that a crime ndax ñun waruñoo may wante gis nga ka ubbi gémmiñam taxaw fële ne waa dem leen Adama Barrow daf leen may uh, enveloppe moom su ko Adama mayoon enveloppe dina ko sànni gis nga bu ñu nit ñi fata xam nga dafa am lu anglais wax ñune if you follow the voice of the market you won't buy nañ leen bàyyi di topp sax waxi nit ñi ñi ay waxi dof la ñoo wax kan moo mun a toog nga nekk président nga ne doo mee ñun de soxluñ pre ñun de soxluñ place man adama baro su ma joxoon tey position ne ma position a ngi nii daxaba appointment leetaa ngi dama ko ko delloo dama ko ne munuma koo yóbbu waaye bu boo ma may nag suma wërsag la loolu crime la gambian suñ bàyyiwut soxor gi ñoom duñ dem réew mi du dem waaye ñun nag réew mi na dem ñun nañ nekk si grievance bee woo bi ñu seet ndax loolu moo ñoo jox mujj bu rafet wala loolu moo ñoo jox ndam gis nga ah, ñun bi ñoo nekk primary school démocratie amoon na Gambia de during Jawara's regime freedom of speech amoon na understand nga Yaya Jammeh bi mu toogee si la bloc démocratie bi si la bloc freedom of speech déggoo li ma de démocratie amoon na ñun biñ nekkee xaleel jamonoy PPP yaa ngi maa dégg bi Yaya Jammeh toogee si la bloc démocratie bi génne freedom of speech amatut waaye kenn waxut Ken waxut parce que di nga mëna nek Europe sax ya ngi ragal pour nga wax ken du daan wax kenn bo gisé tay wax ji di bari ya xam nga amna ben action bu amone during the independent boobu bugguma koo mention during independent bi passé waaye ñi ñi ñep ñu ci ya seen bout su doon jamono yaaya la <laughs> la ilaha illallah gis nga jawara daf fi nekkoon ñu ne waa jawara développut jawara liggéeyut ñu ne yaaya jaame ñëw yaaya jaame ñëw ñu ne yaaya jaame kat la dictateur la fine yaaya jaame dem na ok Adama Barrow ñëw na ñu ne léegi Adama Barrow mii sax benn at wala ñaari at wala ñetti at dafa war a wàcca léegi ne ñu wax Gambia kan lañ bugga Gambia kan lañ bugg léegi nañ ñu ko wax bu fekkee ne nit mun naa ñëw yey Gambia ñëwal nga yey ko ñun ñu noppale ko dañ taayi si ay di ñun soonuñ de taayaluñ de te billaahi wallaahi tallaahi duñ musa deelu gannaaw waaye nañ ñu wax lan kan lañ bugga ban façon buur lañ bugga kan lañ bugga ah, a Yaaya Jammeh bi moo jël réew mi foo amutoon experience of politique amutoon experience to be a president amu ko wax bi nañ leen ko wax mu leer amu ko woon Adama Barrow mu ñoo nekk président amut experience of politique amut experience to be a president waaye suñ ko wonut yoon bi du dem nañ leen ko won yoon bi nañ leen waxante dëgga ah Yaya Jammeh bi moo ñëw foo ban expérience la amoon in polo in wala to be a president toogu bi ban expérience la amoon amutoon expérience bi waaye 22 bi si la ko yàlla dimale teete ko teete ko teete ko teete ko ba dem ba naanda mu aweya Adama Barrow di seem dafa dem ba nga xam ne dina aweya dina xam ne nii la. ak nii la ak politique bi nii la war a demee ak kii lii mooy responsabilité kii nii la war a demee kii dama ko war a daaxa wala kii waruma ko daaxa wala kii dama ko war a promote wala kii waruma ko promote wala lii laa war a def wala lële laa war a def foog mu expérience ko foog mu jànga ko mu mun koo xam Rome was not built in a day ji nga ñii ñi dañ amut amut ñi ñi nga moo tax mooy li ma laa wax rek fii bu ñu fi kenn fata bu ñu fi kenn rey ay fii kenn ragalu fi kenn ku fang da ku fang da fi dañoo baag dañoo dañoo delu gannaaw ya ngeen na sa boppa de xam nga wax ji yëpp moo man suma wax du bari di nga politicien da nga wara am fula da nga wara am fayda da nga wara nek ignorant ignorant lo nek lu nek nga tontu ko to be a politicien da nga wara civilize da nga wara vocal da nga wara am respect da nga wara civilisé da nga sanse da nga wara taxaw nga téye mic nga wax ñepp comme may lim def loolu mooy politicien waaye politicien nga soo ngas nga dégg ñu saaga la ndey nga ne da tontu mus naa ko Adama Baro ma ne ko billahi wallahi tallahi bam mooy bam tontoo woon xaw ba ñu ne xaw ma docteur Cissé ma ne ko bu fi tontu kenn bu fi tontu kenn buur yàlla ko tànna ndax di nga dégg yàlla di tontu doom aadama kon yow mi nga xam ne yàlla tànna la te tànna boobu noonu keroog yomal xiyaama du fi mu laa kontee du fa boo fekk daxaba du fa fekk Siyakas Jaata du fa fekk a Siise kon léegi yow moom yow yow moomu noonu na nga xam ne yàlla moo la taana ñi bu ñu fi kenn fata fii kenn mu hey kenn munu kenn munu fee tiital nit de ku ko xam nga non xam nga li xew weddi wante hu han tekki tube yi 2021 la ñoo xaar nañ leen xaar ba 2021 nañ gémba seen mbor ñun ñu gémba suñ mbor ñun ñooy National People's Party am nga li ma dee wax Adama Barrow coalition moo ko teg loolu dëgg la ñoom ñoo xam seen gentleman agreement ak seen gentleman business loolu seen affaire la ñoom ñoo xam ñoom ñoo coalition bi ñun nag National People's Party ñun ñoo ko ñaxa ñoo ko liggéey ñoo ko xee ñoo ko taxawal te Adama Barrow dañ koo taxawal loolu man maa la ko wax gis nga xawma dredging system lañ ko dee wax ak kama géeg toilette géeg tali karo gi koo xam ne na mu ngaa gémmiñam ne la euh, euh, euh, tali karo yi ni ak banjul ni mo melni projet am la borom waxu ben dega du projet gi benn meeyoo benn meeyoo wut fon bi projet gi Adama Baro la Adama Baro mo liggey banjul moy tali karo banjul soo ma weedee demal si demal demal kii tali karo Banjul du foori na Gambien la laaj ko ndax laaj ko laaj ko ban contrat la amee ndax contrat bi meew la wala contrat bi government la ñi ñi di wax seen wax di leen wax ñi di ñi ñi di wax seen wax yu leen neex Adama Barrow mooy concret Banjul ba pare street light si ñëw Banjul soo ëttu Dakar sax duñ ko mus gis loolu man maa la ko wax Olof Njaay lam ne yoon jeexut wa waxu sul jeex weedi wante huwaan tekki tubéy tegal sa baaraam bañ fekkee ko ak jaama rek nga seet street light si Adama baro di dugal bir Banjul ban amut ben Christmas wala ñu iya bo xam ah bo Banjul yëpp tok nañ ñu jël président bi président bi tombé ñu jël drapeau teg ko during new year diko celebrate wala Christmas nan ko thank you Mr President pour ni nga ceeñee Banjul amul ben president bu ko musa am Adama baro rek ko musa am lolou ñep tek nañ ci seen bot motax mané ne la tubab lum hes hes hes hes baye ko xeesaayam baye ko xeesaayam hey dañ tay ci dañ dañ tay ci seen jànga yu opay yoyu nañ ñu fale seen jànga na ma dama jànga euh, gis nga deliver la Gambia soxla deliver maalo du musa manke dina wàcce luwaas dina wàcce dundu bi dina yomba du ne dafa easy si Adama baro ne dafa toog rek jekke jekke rek toog na rek wàccee loolu preso biñ buga tek teg Adama baro lu tax duñ ko daan teg Yaya Jammeh man loo xam ne musuma koo teg Yaya jame duma ko musa teg Adama baro loolu waxi naa feexala maa ko wax waxi naa feexala jamono ga ñoo jamono ga ñoo génne Yaya Jammeh Banjul di six à septembre yi ñu ko doon celebrate tey bul dem ba nga am ne amuloo li nga bugg nga naan property Yaya Jammeh yi nañ ko ko deeloo tey ngaa toog di ŋang loolu tey ngaa toog di ko ŋang yow sa boppa parce que toog bi Adama Barrow toog amuloo ko li nga bëggoon amuloo ko tey di nga delluwaat baak nga ne Yaya Jammeh ngaa sopoot fii ku fi support Yaya Jammeh du dem maa ko wax ku fi support Yaya Jammeh du dem doo dem Yaya Jammeh xam na Gambian si xam na kuy hypocrite xam na kuy naafeexa tey bul toog naan fris nañ bagage Yaya Jammeh nañ ko ko delloo tey nga koo wax lu tax Demba waxuloo ko Adama Barrow moo fris bagage Yaya Jammeh ah? gis nga fii soo fi bëggee toppa waxi ñii doo dem man duma dem réew mi dafa kalis kóot bañ nañ ba tëdda si suuf tey nga wax loolu naan nañ delloo Yaya Jammeh asset tey nga koo wax lu tax jamono googu noonu waxuloo ko parce que Adama Barrow raw na la léegi mënuloo jot si Adama Barrow nga ne xaaral ma la nga am waat delluwaat si Yaya Jammeh dama fa nga fekk yàlla dina la mbéj ba nga fonda yàlla moomut àddina gi yëfi naa fee xamoo baaxut ah, man li maa wax pour finaliser mooy nañ leen waxtaan nañ leen juboo nañ leen kaf nañ leen ree polotik noise la ba pare leneen lu maa wax mooy loolu ma ko advice gars yi ah, National People's Party yi loolu man dinaa ko advice gars yi National People's Party yi parti bu ees la na ñëpp dal na ñëpp tey gis nga place soo buggee toog si toogu bii mu dëgër bàyyil yàlla suñ borom ji mu teg la fa bul xëccoo place yi jàmbur bul lijjanti place yi jàmbur place yàlla moo ko joxe nañ leen jagar pati bii mu nekk loo xam ne li soosey di wax mu siima yaa ñu bàyyi cëliñante bi APRC mun naa la wax li ko daaneel tey ba ëllëg kenn du ko fi wéedi parce que man Gambia ba Gambia daj kenn jiituwut ma APRC kenn xamul sax flag yi APRC bi green bi naka la ñëwee man mun naa laa wax green bi naka la ñëwee billahi wallahi tallahi ma wa tegal la évidence green yi APRC flag bi ma wax la naka la ñëwee soo ma weedee ma tegal la évidence ku ko weedi ma tegal la évidence maa ngi amee évidence bi green yi APRC bi num ñëwee man ma wax la ko maa ngi amee évidence bi ku ma weedi ma tegal la ko àddina bi yëpp gis ko man aw ma weedi wante de man li maa li maa man li maa def dama ko mun kenn jiituwuma fa di ma gën a jànga waaye politique kenn gënuma koo xam kenn gënuma xam politique APRC ni flag bi ñëwee man mun naa la koo wax léegi nii te ba pare ma wax la si kan la jógee matega tegal du mun naa la ko wax legui ni waye duma la ko wax unless and until parce que si adina la ñeka Suma la tegalut evidence dina dina dina dina taxaw fa le naan dahaba muna fen ay waay dahaba mun a meew mu ne APRC flag bi xamna ci kum joge APRC ñu gifi, gi fi 99 percent bi yëpp xamuñ naka la flag bi ñëwé green color bi xamuñ naka la ñëwé man nak suma la ko wa dama la tegal evidence ga gis ko live nga gis kii nga gis nga gis diw sangam nii xam ne mu ngi téye flag bi te jamono googu noonu 1994 laa laa wa flag amutoon turi parti amutoon vice président amutoon dara amutoon chairman amoon an acting uh, minister si ñu ngi sol uniforme jamono googu flag amutoon dara amut man taay mi maa wax ku ko weedi nga APRC kuy wax léegi léegi nga bu yaagul nga dugg ay 97 98 99 et 2000 si nga soog a dugg APRC man loolu yëpp mun naa laa wax waaye balaa ma laa wax ki flag bi si kan la jógee te xam nga borom yow gis nga borom toog nga ak borom xam nga ko nii live flag bi si kum jógee waaye duma la ko wax fee teguma évidence ma won la ko nii àddina bi gis ko ñu xam ne Dahaba du fenkat man duma fen lu ma xam dama ko xam waaye li ma wax mooy parti bu ees bi mooy nañ leen put hands on deck nañ leen seet politique yi PPP ñu fula footstep boobu noonu dinañ dem nañ leen jagar suñ politique bi dama ko daan wax duñ ma daan góom the devil you know is better than the devil you don't know man xamoon na ne suma ndaje bi suma ndaje bi APRC dina tas te famo moo joy dina joy dina jógee fuko ken fogeewut man lima wara wax jeexut de waaye xamna ne dañ ko dog fi dem yoon man ni parti bi ni APRC raje ak ni gannaaw ni ak li dal APRC mën na ko wax tey suba be ngone ken duko daji ken duko daji amul benn doomi APRC buy taxaw suma kanam nga challenge ma mun ta possible li ma wax ni si media laa ko waaye àddina bi na ko na ko wool bi yëpp wooy dégga ba ñi nekk alha loo may xiyaama sax nañ ko dégga maa ko wax man ndaxa ba dinaa wax kenn du ko daaji ku ko daaji ma teg nga nga nga ñëw toog ma toog man du ma dee jow koo xam ne weedi na ma na ñëw toog ma toog ma génneel ko évidence ma tegal ko ko léegi nii moo la karta gi lan moo ko yaaxa ndaje bobu man xamna ne dina tas te fi mo tasee joy dina joggé fuko ken man maa ngi Gambia suma ene eeneyee doom aadama lu ñaaw wala lu bon billahi yan nasi jitu musuma ene dom adama lu ñaaw musuma ene dom adama lu bon suma ene dom adama lu bon wala lu ñaaw yan nasi jitu waye National People's Party parti bu es la nañ gor góorgóorlu di la ñaan li la war suri. nañ len tapa tapa holi nañ leen xam ne fu mu nekk nii fottin opposition party moo am biir Gambia fu mu nekk nii ngoyoo ngoy golo bu nekk ku nekk a ngee jóg di fiti fata ñun nañ leen dal nañ leen tey nañ leen xam ne ñun dañ am parti bu ees dañ soxla mbooloo yow sa passeport dina gën a important passeport yi ma demba ma samba ma yoro daaba waaye sa voters card du gën a important voters card yi ma demba ma paate ma yoro ak dahaba all voters card are equal soo kon loolu daf laa won ne la kon tey yow danga nga soxla voters card let's voters cards come on deck waaye naka la voters card si di mun a ñëwee pour ñu jox ko Adama Barrow mooy kenn ku nekk nga sa response buñ la ko joxee tiye ko loolu mooy politique bul yàq kenn civilisal nga dem uti nit ñi isi leen si pati bi pati du dundee benn cin pati du dundee supakanja pati du dundee cuuduutiiri kong pati du dundee domodaa pati soxlu dara pati doom aadama mooy cuuduutiiram doom aadama mooy domodaayam doom adama mooy benn cinam doom aadama mooy palaasasam doom aadama la pati dee dundee even gumbo bi mu ngi am gambien la mu ngi am karta bu ko xeeb ka tëdda loppitaan gambien la mu ngi tëdda lopitaan amee karta bu ko xeeb dama nga dem toppa ko nii la PPP daan dundi Oje Jallow du daan xeeb dara daf daan dem si lopitaan yi dem jëli karta yi waxtaan a nit ñi moo tax mu amoon nit kon National People's Party nañ leen góorgóorlu ñu ëppi xol yi ñu dem uti nit ñi isi leen buñ xeeb kenn lii mooy politique bi waaye soo fogee ne soo fogee ne yow yow kenn a gi waaye nee naa la ne collab APRC bi lan la ban kola la du green boobu suma la ko suma la ko su ma la ko proofal dama teg évidence parce que mun su ma la ko waxee léegi dina am ku toog si media bi challenge na caapa eh, daaba mun a fen <laughs> daaba de toj na kaasi mu ne APRC flag bi kola bi lii la fii la jógee fekka teli ma la woon ni dëgg de évidence laa laa tegal kenn du ko weedi nee naa la maa ko wax APRC du ma wax kenn taaji ko loolu maa ko wax ku ko weedi tray ko ma wax nga daaji ma tegal la évidence yow kaay nga tegal sa boppa